اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها واجبر عربي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم mbokk jullit yi mbokk Sénégal ñun waa daayira des étudiants Tidiane bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñoo am mbégte di leen yëgal benn xew-xew bu mag si ndigalu xalifa bi di Cheikh Ahmed Tidiane si Al ak mboolem njabootu Seydi Hadji Malick ñu leen di xamal ni daara des étudiants Tidiane bu université dafa am xew-xew bu mag bu nga xam ni moom la bëgg a taxawal mu jëm si benn symposium bu nga xam ni symposium universitaire la pour waajal gàmmu gi nga xam ni mooy juddug Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu war ko taxawu fële sa UCAD 2 salle de conférence bu mag bu UCAD bi war ko def samedi. le 4 janvier incha allah à partir de 9 donc de 9 ak à ñu si woo ñëpp di si woo mbokk julli di mbokku taalibe yi di si woo képp ku Serigne Hadji Malick njaboote képp ku nga xam ni soppee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la donc message bi mu ngi noonu ñu bàyyi si xel bu baax. programme bi nag nii lay tëddee dañoo sukkandiku ci dimension temporelle et spirituelle du mawlud génnee si ñeenti sous-thèmes yooyu nii lay demee. bi ci njëkk historique et philosophie du Mawlud ki ko war a def nag mooy suñu mbokk Mouhamed Sarr beneen bi ci topp euh, dañuy traiter le Mawlud selon la Coran et la Sunna kooku suñu papa Oustaz Alioune Sall bu Sud FM moo ko war a def beneen bi ci topp aussi di sur ñuy wax war a wax sur la pensée socio-religieuse de Seydil Hadji Malick euh, suñu mbokk suñu xarit nekk bokk ci ñun ci suñu daayira di docteur Mouhamadul Mansour Dia aussi moo ko war a def beneen bi ci topp euh, muy dernier thème bi boobu dañu war a waxtaan ci njëriñu célébration gàmmu boobu tamit suñu tonton suñu soppe euh, euh, docteur Bachir Ngom bu ma sotu mam rawaan Ngom moo ko war a taxawee incha allah noonu daal la programme bi tëddee conférencier bu nekk jour ba incha allah am na trente minutes pour développer thème balaa ñuy jox assistance bi pour que ñu réagir ci euh, tem yi bu ko defee noonu lay taxawee ñun ñëpp ñu bokk déggandoo euh, te xam ni tamit suñu papa suñu soppee suñu sëriñ papa Mansour Sy bu alhaji Abdoul Aziz si Malick comme ni ngeen ko gisee nii moom aussi moo ko war a taxawee incha allah. nag mbokk yi programme bàngoogu yaakaar naa ni ñëpp dégg nañ ko ñu ci woo képp koo xam ni jullit la di soppe Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ciy woot képp koo xam ni tiijaan la moo xam yaa ngi ci Sénégal wala fépp foo mënti nekk di ci woot bépp tiijaan boo xam ni yàlla dogal na xalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum di sa kilifa di ci woo tamit mouvement des jeunes Tidiane Malikite de Dakar ñoom ñi nga xam ni ñoom lañu àndal ci liggéey bi di leen yëgal nit ñi ngi ci woo coordination Tidiane de Dakar bi nga xam ni ñoom lañu tuddee bés bi kon su boobaa ñi ngi ñaan képp koo xam ni jullit nga di tiijaan di soppe Seydina Muhammad ngeen teew ci bés bi à partir de 9h ba 14h bu ko defee ñu bañ a téye kenn teel a yëkkati jotaay bi kon samedi la euh, le 4 janvier 2014 fële ca UCAD 2 ci biir université ñu ci woot bépp fédération boo xam ne yaa ngi ci biir Dakar ñu ànd ak ñoom. ci liggéey bi di ci woo bépp jullit moo xam yaa ngay dund ca biir université wala yaa ngay dund ca la wër université bi ba ci biti Sénégal ñeen ñëpp bëgg nañ ngeen teew ci te thèmes yi ñu leen jox léegi ak conférenciers yi ñu leen jox léegi ah ca dëgg-dëgg yaakaar naa ni ku fa ñëw di nga fa dégg xam-xam di nga fa am loo jariñoo te xam-xam nag alalu jullit la fu mu ko fekk kon daf ko war a jël ñu ngi leen di ñaan kon bu benn manqué te yaakaar naa ni kenn du manqué incha allahu rabbi yal na leen yàlla may wér ak dal ak tal ko ba ñëpp daje ci biir université su boobaa ñu wane suñu liggéey maam Seydal Haaji malik ci yeneen bi ak ci diine ji yëpp incha allahu rabbi kon ñu ngi leen di xaar te yaakaar naa ni yéen ñëpp di ngeen ci teew salaamu yàlla